nu woowee président Abdou Diouf mu ngi woote nee na mu ngi leen di nuyu le président Abdou Diouf nee na mu ngi jaaree Sénégal gépp nee na moom président Abdou Diouf mu ngi jël njaalam di ko teg ci loxo Aminata Mbengue Ndiaye nee na ak sénégalais yi fi teew yépp nee na moom Gaston mi dem de di ndijaayam la moom président Abdou Diouf ànd naag moom bi mu nekkee président président de la république bu Sénégal nee na bi yàlla ñëwee tamit nee na boobu it mu nekkatul président de la république Gaston nee na Gaston Mbengue su ñëwee Paris nee na foog mu ñëw seet si ko Paris waxtaan ak président Abdou Diouf soo ko dellu. nee na président Diouf bu soxlaa Sénégal mu gi woote mu ngi woote waat mhm. ne mhm. xaaral xaaral lépp kenn mënu ko ab par l'heure président nee na mu ngi leen di jaale président Abdou Diouf nee na mook soxnaam yéen ñëpp mu ngi leen di jaale président Abdou Diouf nee na na ko yàlla suñ borom xaral àjjana moom Gaston Mbengue nee na mu koy jaare xaritam rakkam Aminata Mbengue Ndiaye nee na moom Abdou Diouf de mu koy jaare Haas Mansour mi toog nee na mu ngi ñaan moom président Abdou Diouf yàlla mi nga xamante ni daara taw ko yàlla na yàlla suñ borom def jàmm ci biir askanu senegal nee na kon ñu jox ko aminte mu àggali waxtaan wi mbokk yi daal bu ñu fi jógee yoof lañ jëm bu ñu jógee yoof incha allah ñu nga jëm fële aca njox bisimilah. Aj Mbacke Ara Xaadim Samb Xaadim Sàmm dafa ànd ak Gaston lu yàgg lu xam ni xaju fi dana sànni kàddu bu ëllëgee ci yoon tam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam tey jii yaakaar naa ni tiis yi nga xamante ni tal na suñu kaw waaye tal na ci kaw njabootu làmb waaye tal na ci kaw monde sport bi waaye tal na ci kaw diine parce que Gaston moom moo tëddee woon noonu mii taxaw di wax yaakaar naa ne teel na maa jël yóbbu moom ma nekk xale mu def ak man tour du Sénégal ci kalaaf ñu am lu bari loo xamante ni daan nañ ko jokkalante ci mbaax waaye maa ngi leen wax ni tey jii kii dem mbokk du ko jam askan du ko jam tëkkandoo du ko jam man nitam du ko jam tey fa mu nekk ndax ku nekk xam na ni ak défendre ay intérêt ak boole koog dëkku ku ko xam-xam ni lu mu la war a wax dafay dafay taxaw wax la ko engagement bu mu war jël day taxaw jël ko kon Aminta ñu ngi lay jaale Gaston xam nañu fi mu tolloon ci yow tey ji yaakaar naa pour ñu jox ma kàddu ma taxaw fii di wax te su may bàyyi nekk fi dafa am lu ñu séqoon man ak moom ci relation bu rafet ci kóllëre bi mu nekkee ci biir feebar du toog semaine boo bis boo xamante ni yëkkatiwul téléphone am woom kon bakkan xel dal na bi ñu gëstoo mu am taaw bu mel ni yow nga taxaw taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rafet la gunge say rek boobu ba léegi ku nekk xam na ni bi sa papa ba léegi ñun ñi la jigee xam nañ mooy amoo benn jot nekk ci yitteem di ko dox kon nag loolu tey ji yàlla ko yàlla suñu borom xare àjjana maa ngi gis ñëpp le président du Diagne Diecko ñu ngi lay nuyu Abdou Aziz Ndiaye bu Alaaji Ale ku nekk xam na ni taxawaay bu mu am rek bi mu ñëwee def na ko fi moom ñu koy ñaanal famille bi sant nañ la gërëm nañ la asalaamaaleykum wa rahmatullah Dakar Live ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen si ziar tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di euh, l'hôpital principal euh, li ñu fi indi nag euh, bokk ci muy génn àdduna kooku di Gaston Mbengue Gaston nag ngeen xàmmee ko rek mu nekk promoteur boo xam ne askanu Sénégal ràññee nañ ko bu baax te itam daan ko bàyyi xel waaye tamit bokk na ci nag liggéey bu am solo bi nga xamante ni rek yàgg na ko def ci culture bokk ci rek muy làmb moom Gaston Mbengue nag ginnaaw bi mu wujjee boromam ni ki démb tey nag ñu amee levée du corps bi fii ci l'hôpital hôpital principal euh, war koo denc nag foofee nga xamante ne rek moom moo di Yoff waral nag ñu bari daal di ñëw ngir teewaaye li nga xamante ne rek moom mooy tey mujjantalu euh, bisam ci àddina euh, kookee nag ngeen di seen ci image yi mu nekk Youssou Madjiguène Ndour moom nag ngeen di ngeen di seen noonu rek mu daal nekk ci li nga xamante moom voilà comme ni ñu leen ko waxee rek euh, moom euh, Youssou Madjiguène Ndour moom ngeen di euh, seen noonu ci image yi moom itam daal di ñëw rek ngir daal di teewe levée du corps boobu nga xamante ni rek moom la ñuy amal ni ki tey ji file ci l'hôpital principal moom Gaston Meng nag dégg ngeen li fi jot rot ci ay mu nekk ay mbër ay ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di promoteur ak ñu bare bari daal di nañu ñëw rek daal di teew si file ci rek l'hôpital principal ngir rek daal di koy gunge ci rek fanam yu mujj mujj ci àjjana di ko ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xaaree ko àjjana si Gaston Mbengue nag nekk monument boo xam ne askanu Sénégal daal ñu ko bàyyi xel. voilà comme ni ngeen ko gisee noonu rek ci image yi El Hadj Mansour moom itam mu ngi noonu daal di toog. Euh, moom tam daal di ñëw rek ngir euh, gunge ko ci rek fanam yi mujj ci àddina euh, moom Gaston Mbengue nag comme ni leen ko waxee rek mu nekk koo xamante ni yaakaar naa ne askanu Sénégal fierté la ngir rek daal di koy am par rapport ak li nga xamante ni rek jot na koo def ci làmb waaye bu weesoo loolee rek mu nekk ab homme d'affaires boo xam ne bëri na ci ay yëngu yoo xamante ni rek mu ngi ci doon yëngu alors kooku ngeen seeni tam mu daal di nekk rek ki nga xamante moom moo yéen ak liggéey bi rek ba après quoi témoignage yi moom mën ngeen ko yéen jàpp nañu ko te yàlla tax na gars yi jàpp nañu ci voilà mi ngi noonu nag ginnaaw li nga xamante ne rek daal dina am kon fii ci Sénégal muy naqar ak tiis alors dégg nañu rek ay témoignages am importance ndax Gaston bu passé rek liggéey bi nga xamante ne rek doon na ko def dafa amoon relation yu am importance digganteem ak jiitu réew boobu euh, nekkoon fii ci Sénégal muy président Macky Sall gannaaw dégg ngeen ay témoignages yi nga xamante ne def nañ ko ci euh, mu nekkoon xaritam nekkoon itam ànd wala sax daal nekkoon tamit li nga xamante ni moom moo di wéttalam euh, tey